mbokki julit ñi ñu ngi leen di nuyu ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ñaan suñu borom li kaddu gi lambo ci jamm ak mucc ak yermandi ak barke yalla ko yalla wacce ci barab bi wacce ko ci dekk bi wacce ko ci rew mi wacce ko ci aduna si ngi santaat sunu borom subhanahu wa ta'ala ci may gu reey gi nga xamne ne may dotul tol ni mom ci cër bu reey bi nga xamne itam cër dotul tol ni mom muy cërub alquranul karim bu delu ñu wërsegal boole ñu ca ñey kër kër yi ngir cër boobu ñu mën koo cëroo mën koo jëriñoo fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira ñu ngi nuyu notable dëkk bi jiital ci maire teg ci ñi nga xam ne ñoo ca tegee jiital ci yilimaan yi ak jàngalekati alquraan yi waaye itam toftal ci jàngkati alquraan yi di beral nuyoo sunu mbokk yi nga xam ne ñoo taxawee bis bi muy aar daara jéego yi nuy jéego am na fu nu yéene mu àgg moom suñu boroom képp moo ko fa mën a àggale yàlla ko fa yàlla àggale sëñ Maxtaar ñu ngi jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo nga jot li ñu ko mbooleem góor ak jigéen mag ndaw ñu bokk ak yéen liggéey bii ñu leen di ñaanal sunu borom subhanahu wa mi tax ngeen di kër kër yi te lu sotti moo ko sottal lu àgg moo ko àggal yal na yàlla sottal te àggale yal na yàlla barkeel mbokk yi lin ñu santoon ñu war koo waxtaane mooy ngëneelul alquraanul karim ak jeexit ji muy def ci nit ki diko def ci société bi diko def ci aduna bi doyna na sëkk rek ñu xam ne ngëneelul alquranul karim ñu xam ne waxi suñ borom la lol doyna na sëkk ci kaw suuf mooy xam-xam bu nit mën a teg loxo ne lii day suñ boroom moo ci wax ak ay jaamam loolu doy na sëkk ci ngëneel doy na sëkk ci ngëneel ñu xam ne ki ko njëkk jàngale ci mbindeef yi mooy muhammadun rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. mooy sëriñ dara bi njëkk ci umma bi ci xeet bi, kon ñun sëriñ daara si lii nuy jàngale ku nu ko laaj fu mu jógee tontu ba day yomb lool ma nga bayiko ci borom ba jaar ci jibril muy ngeen ji malaaka mu wacc ci yonentu alayhi salatu wassalam di ngeen ji doomu adam di ngeen ji minde lu yalla bind mo la sut mo la tim mo la gën ñoña donnu koka sallallahu alayhi wa sallam donnu nañ lu doy na sëkkit ci ngëneel ñu xam ne alquran mii moo ñëwoon fekk àdduna cig lëndëm mu génnee leen ca yóbbu leen cig leer li tuxrija annaasa min aldulumaati ila annuur bi idni rabbihim ila siraati alaziz alhamid doy na ci ngëneel moom dong mooy téere boo xam ne araf woo ci jàng ñu bindal la ca xasana wal xasanatu bi am amthaliha benn xasana boo tegoon ci suuf mu laali asamaan ya moo tax bu ñuy laaj ñi gën a riche ci kaw suuf ñi ëpp am-am mooy sëriñ daara si loolu doy na sëkk ci ngëneelul alxuraan waaye nag mbokk yi ànd ak ngëneel yu rëy yooyu yëpp ngëneel li nga xam ne buñ ko amee yii nu waxoon yëpp am nan ko waaye buñ ko ñàkkee mu junj lu rëy ngëneel loola mooy defar société yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñëwoon fekk àdduna am nu mbindoo ñi mbokkaloon àdduna am nun doon dundee mu nekkoon dundub ceddoo bu niroog nii nuy dundee tey ci réew mi ñaawteef tasaaroo woon lool notante tasaaroo woon lool jaayante doole tasaaroo woon lool loolu la fi yonentu fekkoon sallallahu alayhi wa mu ñëwee suñ borom ne ko dama la yónni pour nga jële fi notante jaayante doole jële fi lëndëm jële fi tooñante taxawal maandu ci kaw suuf mu justice jox ko téere mu nekk système de vie nizamu xayaa muy système bi gën ci système yi yéen a ko yor système bi gën ci système yi yéen sëriñ daara si yéen a ko yor loolu nga ne lu rëy la kon lii ngeen yor di ko jàngale ci daara yi baat yi leer la barke la boo ci tudd ñu bindal la tiago waaye nag encore tabax société moo ko tax a jóg yéen nag yàlla daf leen a nattu ñun sëriñ daara si tey suñ borom daf ñu nattoo société boo xam ne ba fii ñu toog cadeau bi suñ borom jox ñu lim làmboo ci xayma xëy na xam nan ko waaye jëlaguñ ko téere bi ngeen yor dañ ko tuddee mahbubatullahi fil ardi manam ndabul njek la lu suñ borom wajal ca xam-xamam ba mu mat sëkk la wara dem ca ndab lay yeb dem ca ñu andi taajal la ndabul njek lolu wol ye ñu ubbi ko jëfandikoo li ci biir ñu bayyi kubeer ga ca kaw won ko gannaaw loolu la ñuy dund ku am lu rëy lu gën lépp ku la gis war naa xam ne am nga lu rëy lu gën lépp ku gis na ngay dundee war naa gëm ne nii ngay dundee day lu rëy la lu gën lépp alquran kañ la dugg ci réew mi moom ndabul njëkk loolu yàgg na dat yi bëri na waaye dat bi nga xam ne moom lañ wax ne moo ci mujj ñu jël boobu rek pour wane ne ndabul njëkk li yàgg na fi mil 1048 fekk na daara yi fii ci senegal kañ la fi meneen njàng ñëw 1817 le 7 mars kon rawante nañ ñoom kii mu ngi ñëw junniy at ak ñeen fukki at ak juróom-ñett 1048 ñu wax 1100 200 300 400 500 600 700 800 1817 njàngum tubaab door a ñëw kon yéen a yéen jiitu ci réew mi durée boobu yépp nag administration coloniale yi fi nekkoon ban langue lañ doon jëfandikoo comme langue d'administration maanaam langue doxalinu àdduna mbindum arab mi ngeen yor ci lañ doon doxalee état yi fi taxawoon léppi administration coloniale bi muy door a ñëw sëriñ daara sii ci la reposé wu ba ñoo ko doon doxal ndax booba ñoom ñoo fi nekkoon comme bindkat ñu dox ab diir euh, jamono commencé di soppiku ki ñu doon jëfandikoo jëloon ñu comme ay fonctionnaire ci biir administration ne man kat dama bëgg samp sama jàngu ñu andi lenn ndaw lu bàyyi ko ca France mu ñëw andil ñu njàng mu ñuy tuddee njàngum tubaab muy lekkool française njàng moom yi dox ab diir ba mille huit cent cinquante cinq mu fekk tombeek ku doon tuddee Faidherbe Faidherbe bu xëy xëy ne léegi nan jël njàngum tubaab mi ñu matale ko réew mi yépp laïciser ko loolu moo indi l'école laïque 1855 kon bu ñu laajee ñu ñu indil njàngum tubaab njëlbeen ku ñuy wax gendarme ku ñu indil njàng moo xam ne école laïque la école laïque école française laïque ñu ne mooy FEDER fadar bu boobu mooy kan mooy ci lakkoon seen daara yi suñ daara yi maam yi rey ci ñoom ñu bëri jëfandikoo force ci ñoom ñu bari mu exilé leen ñu ne kooku de mën na ko ndax dafa gëmutoon yàlla dafa xamutoon lu rëy lii ñu yor téere bi màggaayam la fadar bu xamutoon ñu dem ba 1871 ñoom Faidherbe bu xëy a na ñii daal nga xam ne ñooy jàng arab nañ leen tuddee ay illettrés ummiyuuna jàng nañ waaye nañ leen tuddee ñu jàngut gannaaw bu ñu jëfandikoo ba administration taxaw mu xëy xey na ñun jangunu gis nga koka bu ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lettre la koy tuddé ku jangut mom nak man nako ndax dafa gëmul yàlla moo tax bu dundoon ak abubakarin siddiq radiyallahu anhu lettre la koy jangé moy ku jang manam la koy tuddé mooy ko xamul dara bu dundoon ak Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali bu dundoon ak mag ñii ñu xam ci réew mi commencé ko ca ñoom Thierno Souleymane Baal Cheikh Abdoul Khadir Kane ba jàpp si fii ci ñeneen ñi ca tegee muy ñoom Cheikh Omarul Fouti Serigne Abdoulahi ñas Serigne Touba Serigne Maodo malik si gis nga buñ dundoon ak ñoom dañ leen di tuddee ay illettrés yu jàng. 1871 lañ ñu tuddee noonu kon ñooña dañoo xamul ñun liñ yor comme nag dem nañ ba 1960 ñu am l'indépendance léegi kay ñun ñoo fi des xanaa ba tey jii rek ñu tuddee ñu ay illettrés ñu jàngut te depuis booba tubaab bi ñëwagul ba fi nu toog ñu jàngut ñii ñoo sañ ci tool yi walla boog nga ñoo gor tool yi ñoo sañ ci dëkk yi ñoo doon gas yi ñoo man ci marché bi ñoo man ci secteur informel li ñuy tuddee import export ñoo ci man ba fii nu toog ñu jàngut ñooñu ñoo man ci domaine yii nu wax yépp ba fii nu toog ñu jàngut ñi contribuable lu réew mi quatre-vingt-cinq pour cent ñoo koy def ci keesu état ñu xam seeni kilifa ñu set wicc yàquñ alali réew mi sàccuñ alali réew mi kenn tuumaaloo leen yi milliard ñu jàngut ñi ñooy fay armée bi di fay police bi ñooy fay gendarmerie ci seeni poste seen contribuable ñooy fay président de la république ñooy fay ministre yeeg gouverneur yeeg préfet yi ñu jàngut ñi ñooy fay professeur yeeg enseignant yi ci seen contribuable ci seen poos lay génnee ñooñu mooy ñi xamul dara xel nangu moo tax dañuy wax ne ñooy def lépp te defuñ dara ñoo tabax lépp te tabaxuñ dara loolu nag dañ koy wax tali yi ngeen gis oto yi di ci jaar seen jiba la seen contribution la seeni impôt la waaye ba tey dañuy wax ne jullit ñi wax rekk defuñu fi dara te ñoo def lépp waaw loolu num ñu dalee lay laaj bi def lépp ñu ne la defoo dara man lépp ñu ne la mënoo dara tekki lool ñu ne la ku tekki ade nga jàng lool ñu ne jàngoo lu nu ko yóbbee mooy li ma junjoon ne lu rëy liñ yor lu màgg lii nu yor muy alquranul karim wax dëgg nin ko yoree bokkul ak ni ko rasulullah yoree sallallahu alayhi wa sallam wax jàng loolu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee suñ borom yónni ko ci jamono lu mu wax yéen waa jamono taalaw ila kalima sawaa'in baynana wa baynakum yaa ahlal kitaab taalaw ila kalima sawa xoolal baat bu màndu boobu maa ngi leen di woo ci baat boo xam ne ñoo ci yemoo ñun ñépp buñ ko dundee kenn dootu def morom ma ab jàmm équité égalité justice mandu dana am kenn dootul mën a tooñ kenn ndax léppay tegee ci yoon allah naabuda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattaxida baduna badan arbaban min dunillah ci gàttal mooy ordre ak interdiction ñu bàyyee ko yàlla mbokk yi ibada biko yonentou bi alayhi salatu wassalam di firil adi ibn xaakim dafa ñew tok mu ne adi yeen da ngeen di jaamu seen fóore yi di jaamu seen yanke yi manam seen borom tam tam yi ak seen kat yalla yi adi yu ne ko leen mu ne ko ah, kay ndax duñ leen di digal lu yalla tere ngeen nangu addu yu ne ko ah kay ndax duñ leen di tere lu yàlla digle comme ñun ñi tey nit ñu teree ñu àttewoo ci alquranul karim ñu nangu addu yu ne ko ah mu ne ko njaamu loolu koo ko defal yaa ngi koy jaamu gis nga àdduna dafa tege ci ordre ak interdiction alaa lahu alxalq wal amr ki bind waay waay moo war a digle ko defe nag ñooñ alquran tey dëgg-dëgg dañu war a yeddaat suñu bopp bu fekkente ne liy fay professeurs yi ñoo koy génnee ci suñ jiba waaye ba tey jii suñ ndongo yi ñooy yelwaan yi ñi leen di jàngal kenn gàddu lut leen saler sëñ Maxtaar wax na ko léegi école un deux trois quatre fu ne primaire secondaire ba iniversité lépp yéen ko tabax ngeen tabax lépp di fay ñëpp waaye ñiy jàngale alquran moom bokkuñu loolu noteel day noteel war na koo mën a waral ku la ëpp doole ñëw jaay la doole not la ci kano fital boo yëngutoo mu dóor loolu war naa war na koo mën a amal waaye loola nekkatu fi tey jamonoy kanoo yaak fital ya jeex na kon lu ko fi wëcc ci ñun ñii la yalwaan mi man dama naan bala ñoo xas état nan xas suñ bopp ndax ci yor li gën benn waay ñëw ne ko li nga yor du dara teg ko fële nga nangul ko ko waay waay

ñaar fukk téeméer léegi sax ay téeméer la ay téeméeri candidat kenn ku nekk ñëw naan dénk ma réew mi ma defar ma teg ko fa ko dégool tegoon ak feder bi loolu la de dénk leen ma réew mi ma jaarale ko ci yoonu feder bu ak dégool ma amul dara mënut tus day ñëw ci yow naan la dénk ma te suñ borom moom lam wax leer na diina jii duul lu nuy dénkaane dañ koy gëm di ko dund di ko dundal ki ñëw ne la dénk ma ko mat ma boot la bootaale la bootaale sa diina ji jaar ak yow ci yoonu feder nga nangu kooka daal bu dundalee yoonu feder bi warut la warut la de bu dundalee yoonu feder bi warut la bu tabaxalee école feder bi warut la bu tabaxalee université feder bi mane ne warut la yaa war sa bopp la doon bette kay tey yéeme mooy mu ñëw ne la kaay dénk ma réew mi ma jaar ak yow yoonu feder bi mu dem ba nga dénk ko réew ma mu tabaxal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tabaxal koy daara di ko fayal ay enseignant ak i professeur looloo doon bette te tumu waaye moom la mu waxoon ca la ne amul benn leader ci leader yii ñu fi gisagum ku mos ñëw nañu kaay leen dénk ma réew mi ma jaar ak yéen ci yoonu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masala feder bu ndax dafa gën a màndu rasulullah sallallahu alayhi la waaw xam-xam bu rëy bi nuy wootee ba tax ñu ne ko yàlla dina nawlootuñ la sax téere bii du xam-xam ban xam-xam la dama koy faral di wax toujours di ko répéter docteurs yi yor ay thèse yi doctorat yi nekk Sénégal yépp buñ leen dajale woon ci barab yëkkati budget ay milliards milliers de milliards jox leen ko yéen docteurs yi ne leen dañoo bëgg rek seen xam-xam bu rëy bii ngeen di woote ba tax ngeen xeeb seen seen borom bi leen bind bind leen benn peppu suuf benn pepp suuf ana ku fi bindagum teesu doctorat ku mën a bind benn peppu suuf amul te du ma ana ku bind teesu doctorat ku mën a bind ngelaw lii nuy noy yi muy oxygène bi amul te du mos a am ma kooku borom xam-xam bu rëy boobu bind lépp walbati ko ne hada xalqullah fa aruni maada xalaqa alladina min duni wan leen ma li ñoom dégol ak ñoom feder bu bind lépp lu ngeen fi gis nag yàlla ko bind ma ne kon nag dafa jot yeewu nelaw yi póot na ëpp na jàmbatu gi métti na dund bi tar na tar na ci ñu bari ñu néew la dund bi yomb ci ñoom tey borom kër yi am nañ problème mu dépense am nañ problème mu yar seenu njaboot jàngal seenu njaboot am nañ problème mu sax faj seenum njaboot c'est parce que fiñ jaar a baaxut dañ war a nangu ne fiñ a baaxut gis nga yoonu Faidherbe bi wii ak yoonu De Gaulle wii feeg ñu ngi ciy jaar tartar yi day yokk suñ bay aadama biñ ko ne cëpp ci suuf luñ ko wax njub màngo topp leen ci fay maa yatiyannakum minni hudan fa man ittabaa hudaaya falaa yadillu wala yashqa su ngeen ci toppee malheur jeex l'ignorance jeex mbokk yi alquran mi lépp luy xeetu xam-xam daf ko favoriser ndax xam-xam ñaar la xam-xam bii waxi suñ borom la bi ci des jëfi suñ borom la xam-xam génnul ñaar yooyu xam-xam boo mën a spécialisé wu benn muy waxi borom bi di alquranul karim mbaa muy jëfi borom bi muy yeneen xeetu xam-xam ya des bu dee alquran dañ naan ñépp ko war a xam bu dee nag xam-xam ya ca des ñu ne obligation collective la université bi xalé yi génné ñu dippé ko ci jangum France ma gis nga bi koy ñom dégol di indi fi ñom ña ngay liggéey seeni woto seeni avion seeni missile waaye ba tey jii xale yi mënaguñoo liggéey oto danañ leen jangal lamiñ wi nak bañ ne ar karwaatu mëna waxtu wax lool waaye wax du xam-xam xam-xam mooy mën a def dara xam-xam mooy nga mën a liggéey njumtukaay bii mën a liggéey woto bële xam-xam bii ñuy tuddee obligation collective mooy nga mën a liggéey boog ab pikiir waaye ba tey jii xale yi dañ leen di jàngal wax bañ ne ar rek ñu génnee leen kuñ ci fonction embauché wul chômeur dafa am benn docteur vétérinaire moom benin waa la yaakaar naa ñi ñoom xam nañ ñu bëri xam nañ muy Baba Ngida Baba dafa jàng ba génn ñu ñu gàll ko ab ab diplôme mu ne docteur laa bind na teesu doctorat waaye bi mu génnee commencé dem di jëndi ay garab dajale ci biir barab bi pour commencé jaay garab ku ñëw mu ne ko biir nii lañuy ñuy fajee xar mi bëy wi nag wi ganaar gi mu toogaat ba ca kanam mu mu laaj boppam ne waaw garab yi may faje mala yi ku ko liggéey ñu ne ko benn docteur bu bokk ak yow njàng nga bind thèse doctorat moom it mu bind thèse doctorat mu ne man duma docteur dañ may nax man docteur la docteur moo mën a liggéey ay garabam indil ma man mënuma dara xam nga nu mu defam delluwaat ci ay tooli baayam fexe ba am fa ñaari hectare taxawal fa lu ñuy la maison du paysan ay ganaar ak lu moo lu biir première bi morom yi universitaire yi buñ ko fekkoon mu nekk ci yi dañu docteur Baba dafa topp ko at benn bu nekk produiral ko juróom-ñaar fukki ganaar mu ne waa lii de man maa ko produire xam nga boo defee soixante-dix fois trente lu mu lay jox hmm? deux mille cent waaw mu réewam ndoxu réewam jënu réewam ba réew ma mu appauvri appauvrir leen amatuñ dara moo ñu dal kon nag ndongoy daara yi dafa jot ngeen jóg sëñ Matar ànd maanaam aar daara aar daara aar daara baax na jërëjëf jërëjëf aar daara bu leen ko tuutal bu leen ko xatal xale yii yëpp ci aar daara lañ bokk ñoom ñëpp ay subir les mêmes conséquences képp koo xam ne doomu jullit la fexe leen ngeen contacter ko defak ñoom ay table ronde def ñoom ay nuit d'étude beru xoolaat askan wi nii muy doxee ndax dem na wala demut en réalité demut bu boobaa ñaari culture yi fi nekk kii génne ca université ba kee génne ca daara ja nañ boole ñaar yi am nañ ko boole lépp xam-xam la bu war a servir diina waaye feek daara yittiwoowul xam-xam bee xale yi jële ci université ba daara du gaaw a dem dafa war a dugg si ci biir daara yi waaye yéen itam feek yéen a ngi berul fële ak seeni karawaat am na tànk bu leen manqué du ngeen dem de mooy la ca daara ja moo leen manqué ñaari tànk la biyee nga ca daara jee biyee nga ca daara jële yéen ñaara war a daje nag boole ko door a taxawal l'école sénégalaise l'école francaise bi daf war jëm seen société lii nga xam ne mooy ngëm-ngëmu réew mi à quatre-vingt-quinze pour cent liñ gëm waay waay loolu ñu xaymaal ko jox ko valeur li yàlla ne lii bu jiitee àdduna dox waay waay ñu jiital ko dafa jot jërëjëf sëñ Diop jërëjëf bu ko defee kon buñ yàkkamti ci ni nuy demee yéen ñi itam bu leen am déception manifestation yi na li bi na am déception d'ailleurs wat len ngén ci lañ ko laïcité bi fi ak démocratie bi fi nek fictif la démocratie moy majorité lañ war respecter seeni ngëm fañ jëm fa lañ war a jëm ba moom la ñuy doxal ci seen élection suñ demee ci présidentiel yi ma am 51 yow nga am 48 virgule ñu ne man mi am 50 et démocratiquement may jiite loolu amul fii ci Sénégal démocratie doxu fi laïcité doxu fi ay naxante képp a fi ne benn élite poignée d'hommes bu fi représenté intérêt yi ñeneen booloog ñoom di exploité askan wi lii da lañ fi gis kon nag nga ne lu rëy lii leen seen borom jox mbokk yi pour ngeen exploité ko faaw ñu nekk benn mbokk mi wax na ko léegi moo tax ñoom bokk na ci seen stratégie yi gëna salté diviser pour mieux régner daara yi yi association yi nañ nekk benn jëmm daaray cosaan daaray moderne nañ n'ek ben jëmm daaray moderne yi kat muy daaray internat yii daaray cosaan yi ñoo leen jur ku fi samp tay interna ba meuna genné ay xalé ñu jang ci diire bu ko san mo la jur kon bu nangut dara lu nu séparé nan benno su fekkente ne nak am na ci ñun ku dem ba gis ne daaray cosaan yi kat nangam ak nangam ak nangam nañ japp ne dafa déssé comprendre mbir yi bu mu tax ñu dok ko bu mu tax ñu wan ko gannaaw déedéet nañ ko jege waxtaan ak moom xamal ko danger bi nekk ci li muy def ndax lépp lu ñuy teqale sunu musiba daara yi tey bu nu bennoo muy ña ca biir daara ja ak ña génnee daara ja nekk ca biir marché ba nekk secteur informel ak ña ca génnee nekk ci administration bi luñ bëgg ci réew mi mooy am te réew mii dara mënu koo yóbbu lu dut e teg ko ci waawu yàlla gis nga suñ mag ñu baax ñii fi jiitoon kenn d'accordul ci li fi ne loolu na ko taalibe yu xam taalibe yi gëm leen ne seen sunu sëriñ sii fi jiitu woon kenn àndut ci plateforme laïque bi fi ne kenn maa ngi yor nii ci sama portable fan yi di ko lire benn code de la famille boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko bindoon biñ bëggee indi code de la famille bi mu ngi fii yaakaar naa mbokk ma leen mu ngi ko yor Cheikh Taha ku ko soxla rek ñu ñu partagé leen ko mu yaatu ba ngeen xam ne mag ñi d'accord yu woon ci lii ñun lu tax ñu d'accord ci boobu la bind code de la famille yóbbu ko ci mag ñi fi nekkoon sëriñ si fi nekkoon ñëpp signé ko ñenn ña sax signé wu ñu yem ca comme ni euh, nu mu tuddati ànd sàmm jikko yi def dañoo bind teg ca signé bind dëgëral ne lii lañ gëm code baa nga nële ci même année yooyu ci la Cheikh Abdoul Aziz Sy rahimahullah na ko yàlla yokk lee moom itam bind benn xasida wane ne ànduñ ci code bi ànduñ ci constitution bi bokk yi nañ xam loolu ànduñ ci biñ ko waxee lu tax mu ne dusturuna nahnu kitaabullahi man jaana bi gayrihi falaahi sunu dustuur ñun mooy téereem yàlla bii ñuy jàngale ci daara yi duñ ko remplacer lenn ku nu fi indi leneen ay tiaxan la gis nga ay walahi wallahi dem ba naan bihi wala tughayyiru ahkamahu bihi alqulub tahiru ngoy len ci téerab yalla bi moy sen constitution atte bi bu len ko kenn soppil moo tax gis nañ bañ ko soppé lim ñu jurel càcc gi bëri na hold bi criminalité bi yokuna ja at mu jot taux de criminalité day yok lu ko waral lam mu rek te suñ borom waxoon matlaam bi rabbina huwa alkitaabu tamassaku bihi huwa sawab ci bir mune wa malana kot fa si wal quraani fa ghayruhu fa huwa kotu seytaani benen kot bu ñu mëna andil kotu kotub seytaan la kooku ci li ana njabootam ñi dongo la kon mag ñi jéego woon nañ jéego yu rëy waaw gis nga Cheikh Ibrahima Niass moom itam ci jamono boobu ci la bindoon ne fama nappali yuunu aw liniinu wa markasun bi muuxan ilayhim xalli anka xabaala mu ne nappaliyon liniin Karl Marx ñooñu de la fi seen taalibe nekk ci ci ci démb ba tey mu ne ñii yàlla wàcceewul ci ñoom wax yu seen lii nan ko sànni ca àll ba ak yàq la ana njabootu ñii suñ maxtaar bu leen yàkkamti lii nan ko topp leader d'opinion yi nañ leen dajale waxtaan ak ñoom pour delloo si leen ci ngënee lu rëy lii di alquranul karim moom dong nga mën a defar xel yi ñu leen defar bakkan yi jikko yu baax dàq fa lépp loo xam ne jikko bu yàqu la defar xol yi bëggante am fa ak bëgg yàlla subhanahu wa taala wëlbatiku defar cër yi benn cër dootul def safaan alquran rek ko man loolu mooy jeexit ji muy def ci nit ki moom rekk mën a taxawal famille famille ba juboo kawara jiitu jiitu ka ca topp topp ca soxna si wormaal borom kër gi borom kër gi wormaal soxna si xale yi wormaalante wormaal way jur yi alquran rek te ko man moom rek moo ñu mën a indil dundu social boo xam ne day tegee ala asaasi taawuni alal birri wa taqwa bëggante dimbalante solidarité sociale moo tax euh, yal yàlla jàpp la leen am na benn proposition bu ñu defoon ñu ngi ko tibbee woon ci wa taawanu alal birri wa taqwa ba fa sëñ Maxtaar mii jaaree noon naa ko danaa la ko yónnee gis nga buñ ci jaaree insha allah solidarité sociale boobu muy at taawun alal birri wa taqwa yàlla xam na ne doy na sëkk ñetti at taalibe dootu yelwaat sëriñ daara dootul tumuranke te la koy def kenn du ko yëg mën naa ko li may ñàkk-ñàkk ka ma gën a néew doole sax man na ko mbokkoo nag moo ñu koy may bennoo moo ñu koy may jàppante moo ñu koy may murid bi murid la tijaan bi tijaan la xaadir bi xaadir la ibaadu bi ibaadu la kenn ku nekk na dund mashrab bi mu jàpp ne bii ci lay jaamoo sama borom waaye ñoom ñëpp nañ ñu daje ala maida ci kitaabillah ndax murid bi mën naa wirde lu génn alquran tiyan bi nak ndax man nako dede lépp loy def man ta génn istighfar man ta génn tasbihat man ta génn salatu ala nabi ma lol kuko digle allah subhanahu wa taala uzkurullaha zikran kasiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan sallu alayhi wa sallimu tasliman kon lanu teqale du loola lanu teqale sunuy bakkan yi dong ak sunu bànneex yi kese ker bu ñu notee sunu bakkan yii nag keroog dund nañu alquran kon lu ñuy sàbbaal ak sikkar moo ñu tàqale déedéet gis nga awraat yi ñu yor teqalewul kenn ak kenn sunu bakkan yi dong nga ñu teqale mën naa koo wax nag layal ko danaa ci tudd ay mag ma commencé ko ci si Ahmada Tidiane yi rahimahullahu tabaraka wa taala am na benn téere bu ndaw bu ñuy tuddee fiqhu tariqati bokk na ci yi ma njëkk a liir boo ca demee danaan la ku leen ñëw ne sëriñ bi nee na cheikh nee na fasinuuhu bi misaani shar'i dem leen ngeen balaase ko ci balaasub sharia su dëppoog moom jël leen kat bu dëppoowul ak moom dañ ma ko waxal bu leen sànni leen ci àll ba am na benn téere bu ñuy tuddee iraatu araishi sumuusi falakil haqaiqil irfaniya jusul awwal ba yaakaar naa suma ma naxut page onze du ko sori ay nit nag dañoo ñëw ay taalu taalibe laaj ko ne ko ñun de dañuy dund ak fee ay mbokk yoo xam ne ñoom nangu nañoo julli nangu ñoo woor waaye bu ñu leen wooyee ci tariqa bi ñoom amuy su ñëw mu ne leen ña ngay julli ñu ne wa ña ngay woor mu ne waa ña ngay nangoo joxe as mu ne mu ne leen loolu dong laa bëgg ci yéen sama njaboot mel si ahmad bamba gis na ko mi wax ci ben terem ne wala tu'adu man raaytum fahu yuxriju la ilaha illa allahu kon dama ne dafa jot ñu yewu gis nga ñu bari sen intérêt moy ñu teqalikoo ndax xam nañ ne feek ñu ngi teqalikoo dañuy neew doole bu man dara kenn mënta demal boppam man lu ñu tee booloo te suñ borom moo ñu ko digal waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu sëñ bi wax na ko léegi yaakaar naa ci biir kii bi xutba bi yërant bi njëkk a def bi mu ñëwee madina sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax aleykum bil jamaa fa inna aljamaata rahma wa iyaakum wal furqa fa inna al furqata adab xutba boobu rek defar nañ sunu mbir tey sénégalais yi nombre musulman yi àgg nañ ci quinze million quinze millions xëy na jombul aar daara dana ci mos a def benn journée invité ci nag waa réew mi ñu toog waxtaan ci quinze millions de musulmans ñi am mën nañ lépp kenn ku nek bu doon aljuma ju jot ñu dajé ci jumaaja sama ndom si sumay ñew ñëw andi ko ba ci kees gi ne ko defal fi sa ñaar ko jangal ma def sama ñaar fuk sama ndom def ñaar fuk ma ne ko li na keesu yowmal qiyamah la loo ci tabal dal taral pay ga yowmal qiyaama nga ma bàyyi li luñ ci jublu may dañu bëgg daara yi

dang koy jangal sacrifice pour tabax askanam wa ma tunfiquna illa btigaa wajhillah 1 milliard cinq millions par vendredi wa ben bëccëg te yalla organiser nañu wutal ñu or meilleure organisation muy famille famille ñun ñep kenn ku nek membre la ci ben famille moo tax ñoom fi mu ne seen yitte yëpp mooy tas famille tas famille mbaa yëg ngeen ne ñoom ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu sottee njaboot gi tas bu ngeen jógee nangeen dem ci net bi ngeen bind la complot contre la famille le complot contre la famille ak beneen bu ci tegee muy la complot contre Dieu waaw booy bind lool rek am na benn xaleel bu ñuy tuddee Johann Livernet ndax am day du jullit sax de ab chrétien la waaye ñoom chrétien yi bi laïcité noonu bii jógee ñoom la njëkk a ñoom la njëkk rey seeni kilifa daq leen ne leen yéen dem leen ci église ya xalal bi mu ngi tudd Johan Livernet kuy kontrol laïcité moom ngay dimbalé ndax dafa xam li leen tax a le complot contre Dieu le complot contre la famille laïcité lii moo ko tax motan nañu gëna ar njabot gi société doora mëna am ñaar yoy buñ mëna buñ amé état mëna am bu ndaw bii nag di famille ker buñ ko tasee kurus gu tas la léppay léppay jóoru su boobaa nag néew doole day daal di am teqali ko day daal di am xoolal doole ji un milliard cinq cent millions par vendredi benn milliard ñaata daara nga ci mën a financer pour ñu dem liggéey te kat dongo ya duñ liggéey dañuy jàng nga jàppal leen ni surga ñuy produire vingt quatre heures sur vingt quatre di dugal ci daara ji daara ju nekk mën nga fa dugal lu mu tuuti tuuti fukki million ne leen commencé leen ci ñeenti daara yu nekk ñu boole leen benn tracteur daara ju nekk la fay nekk ci ay nag ak i xar soow ma dundal na leen dundal na waa gox ba mbokk yi bennoo képp ñu ko mën a may bala ñoo dox lu mat weer bu nu xoolee keesu daara ñaata milliards lañ fay fekk un milliard cinq cent millions fois quatre cinq milliards six milliards mu ngoog six milliards ñaata daara ñooy taxaw du ko yëg doo ko yëg danañ taxawal daara yi wëlbatiku dimbale sunu xale yii nga xam ne ñu ngi yor seen xam-xam waaye amuñu moyen pour liggéey ñu ngi dem ci géej gi ñu ngi dee géej gi léegi daanaka ay cimetière la koo ci yëkkati woon vingt millions moom ñaari moromam jox leen ko yóbbu leen ca àllub Tàmba ba defal leen da ca war courant sax dootuñ ko fay matt dootuñ ko soxla nag yanuy yar ca la ñuy génnee ay biogaas biogaas boobu ci la ñuy niitu ci lañuy togg lii yëpp suñ boroom jox nañu ko bennoo kepp kon mbokk yi fii lañuy tëjee nañ bennoo nañ bennoo ker buñ bennoo dañuy taxaw ne lii lañ bëgg ci réew mi loolaay am yàlla ñu yàlla may bennoo ah mu mel ni defe